waaw non moom rek la gaa yi bannir kontam Eva eh, dong la gaa yi bannir kontam xam naa li mu nuroog chinois yi la waaw parce que chinois yi ñoom bu fekkee ne da nga am compte TikTok nekk nekk Afrique boo nuroo ak ñoom boo nanguwul ñëw seen dëkk dañuy bannir compte bi waaw te moom benn la xool xol xool Eva nu mu nuroog chinois lii moo tax gars yi bannir kontam mais nag ummi xale bi ma tànnal dafa mool eh booy piis xale la xale ci kër seen bi la umi umi la umi nak maa ngi doog a xam ne bëgg ki ma ah cum kii moom bu guddi gi xaajee du lamp moom kii moom bu guddi gi xaajee moom. ah umi kay dàq de umi bu déedéet ummi bu fekkee dag ma koy may ba pare di créer ay fiiraange yoy wa mais mom man man awma droit savourer sama amour sama amour bu bess la lay rus. yo Eva yo do jige sa kër ñow ba fi pour doxanante ak man di rus du lol mo la fi indi du lol mo la fi indi ah déedéet. yow waxoo ma fii léegi ne ma Néro bu fekkee ne ummi li muy wax dëgg la ci moom man loolu da dama ko yaakam yow waxoo woon léegi li ah man de maa ngi bëgg a jot waa ummi ummi ummi Eva mi waxal ak moom ko parce que xam naa ne rus li nga wax dëgg la Dalarus non non Dalarus parce que man li ma wax man sànq ci escalier yi nee na ma ummi bu fekkee ne li mu wax dëgg la. yow lan nga fii ba 30 décembre maak Eva dañoo war a génn ñu xamante suñu jukko yi suñu jukko yi ñu xool na suñu jukko yi ànd na wala ànd. waaw kay coup pour heure waaw sama <laughs> dijje bi ay <laughs> jëm coup pour heure waaw nga kii allo Sénégal ah waaw nga woo ñu Sénégal ñu ñëw. waaw gis nga gis nga gis nga gis nga ni mu àndee gis nga. Eh, eh, eh, Oumy dama toogaat ne waay Oumy dama toog ne ma xool. non dama bëgg a xool couple bi ndax kër gi yéen ñaar boo leen fi nekkee affaire yi dina ànd wala déet. waaw demal toog ne ma xool. jëm <laughs> waaw fóon ma xanaa xanaa biis di ko mën nag fóon. dooma fóon. xaaral xaaral xaaral ma def nii caméra bi. Ah, fóon ummi moom yàgg na maa fóon moom. ummi ummi ummi yow la rus ummi doo dem néeg ba nga bàyyi ñu fi tuuti ñu ko. Ah, yow doo dem néeg ba jàpp ci nga abal ñu fii. Eh, Eve. Ah. dama koy bàyyi de barki yàlla dama koy bàyyi. Ah, xam nga dama lay arrangé. Eh, sama digganteeg yàlla dama lay arrangé yow jëkkër bu mel ni man. jëkkër bu mel ni man yow gars yi di ma wër. Aman moom moom 25000 lay takk. waaw man la dóor du la saaga dama lay teg ci biir kër gi di la feccal. ay millions nga dóor ma saaga ma bëgg na. <laughs> yow millions yi rek nga ngay wër. nañ ko <laughs> ummi mi <laughs> yow yow kon yow kon yow li ngay maye yeggul sa xol yow ummi. yow loo ma sa anniversaire sa cadeau anniversaire. mu ma le 30 décembre. yow 30 décembre kon cadeau jigéen bi nga may may yeggul sa xol. yeggul sa xol kay. waa léegi man garaawul léegi man nanis mu ngi fi waaw man dinaa woo nanis yow moom Eva man dama doon arrangé rek waaw man man bii paa moom barki yàlla su may su may wut gel yow doo ko yëg yow ummi billaahi doo ko yëg parce que yow loo yëg yàqal ma yow da ngay def affaire semblant ba ak ba ma indi affaire yi ci biir kër gi ngat changé données yi kii nangu woon na avant moo ñëw nangu woon na nangu nga yow ci escalier yi lañ daje nga ne ma bu fekkee ne ummi li muy wax dëgg la wax dëgg yàlla pare naa man la kër gi yaatu na waaw nga ñëw fii ummi changé ay affaire di jaay affaire ummi dafa muus dale day jaay affaire da baax naa la man fiiruma di la nax di la nax di la nax ba nga découragé moom nooyu lay def